asalaamaaleykum mbokki internet yi Lougaré TV dal leen ak ak yéen am na la mooy ci xam na jëm ci bu baax a baax a baax dalal tey nag ndaanaan la kilifa ci réew mi parce que wax naa la en général réalisateurs yi wala scénaristes yi doo faral du leen di gis man nag dinaa wër ken par kenn di leen wan ngeen fexe xam jikkoom découvrir ko xam mom li muy liggéey lan la ak ak moom la kan ah, maa ngi koy bàyyi mu ne bàyyi Modou moo maa ngi lay ziar bu baakha baakha baax di nuyu mbok internet yi nga xamni ñom ñoy sétane lugar TV yëpp di kontaan tamit ci studio bi niñ ko tuddé muy Serigne Abdou Fatah mbacké borom tay lolu rek mo mo nek mbégte bi quoi di nuyu képp ko xam mu ñuy sétane di nuyu sa way natango ñi may mm-hmm. ndol mm-hmm. ñi may andal ku ci melna na Assane mii ma andal Moussa Diop mm-hmm. ak euh, Ron saliw ak euh, Khadim Lo gay Gaydel di nuyu ñëpp daal ah, bu ñu né Modou Touba gay mën nañ xam rapidement kan moy Modou Touba gay lan ngañ ci mëna tënk Modou Touba gay en fait dongab daara la première fois la dongab daara la koo xam ne Touba la juddoo. Mm. màggee Touba waaye nag yaroo parcelle. Mm. sama kër turandoo muy imam Modou Gueye. Mm. di jiite jumaay Serigne Touba bi nekk parcelle. kon loolu moo tax nga jiite ma nekk imaamu Pikine aussi jàng naa daara ba mokkal alxuraan ba bind kaamil ñaari yoon. kooku mooy Modou Touba Gueye doon taalibu Serigne Touba. ayca merci beaucoup niñ ko waxee xam nga général gars yi buñ la lay gis buñ la lay gis ci télévision yi dañ lay am fuñ lay fuñ wala fuñ lay xoolee. ñaari teg ci nekk imaamu marché cinq mm-hmm. loolu du du lu ndaw nekk nekk Modou euh, bu ñu ñëwee rapidement ci bi yow yaay kilifa ak waa Bally production mm-hmm. euh, te ko nekk bu ñu nee bu ñu nee bu ni label mm-hmm. suñu ne label nga jiitee mbooloo nuyu nga xaalim loo bili ak nga xam ne bi naka nga àndee ak ñoom non kilifa sax dafa rëy da naan ñun ñoo àndandoo di dem rek xam nga ñoo àndandoo di dem wax nga ko Euh, banlieue production benn label la boo xamante ne bi bi mu jógee ñun li ñu xalaat li ñu njëkk xalaat mooy banlieue production parce que dañu gisoon ne téléphone mu bi mu commencé ñu ci bëree bëri banlieue bi dafa amoon ay talent te talent yi daanaka amuñu woon fu ñu wonee seen talent bu ñu créé label bi ñu ne nan lañ koy tuddee ci lañ xalaat ñu ne comme Pikine lañ nekk te mm-hmm. Pikine moo nekk xolu banlieue bi ñu ne kaay ci banlieue bi mm-hmm. la sax dañuy xalaat bu ñuy def ay téléfilm wala dara mënoon nañ dem ci yeneen quartier yu luxe wala dara mm-hmm. mais dañuy préférer des di wone li nekk ci banlieue banlieue bi pour nit ñi manam label bi di wuyoo trop quoi muy banlieue production. Hmm. xam nga ñu bari dañuy séran dañuy séran production gis acteur yi actrice rek affaire bi daw. Hmm. mais production bi naka naka lay démé no production mom mën na né bu aggé ba ci acteur actrice ñi génn comme ñom Moussa Diop ñeneen ñom ñoo gëna a. yomb la ci production parce que production yow xam nga avant. Hmm. production avant ngay dem ci produit bi rek. bala ngay ak sax ci découpage yeeg di di di xol nan lay tourner bala ngay ci dépenser ak yoy rek da ngay daj lu nek da ngay daj lu nekk doog a taxaw nga ne damay programmer artistes def lii def lii des fois da ngay programmer ba ba ne suba la hmm. nga benn empêchement boo xamante ne bii day waral sa tournage dafay fausé mais loolu yëpp muy nekk produit daal bu ñu duggee ba si biir dinga xam ne hmm. xañ na yow sax ñi ñuy seetaan ñoo tax ñuy wax mais hmm. daanaka production bu demee ba dama koy wax tout le temps ne da ngay toog ci télé bi di seetaan benn série lu demee ne série Mariama wala nga seetaan Njaay Fëgg Njaay wala nga seetaan par exemple tey mm-hmm. xel ñaar ñu andil la benn épisode 24 minutes yow nga toog vingt 24 minutes daw jàll nga ne non épisode dafa gàtt mm-hmm. fekk 24 minutes boobu xañ ne tourné nañ ko deux jours mm-hmm. yoo xam ne duñu yendal ñu fanaanal dañuy wàcc ay 22 heures ci guddi wala 23 heures ci guddi buñ paree artistes yi dem ñu war a dugaat studio monté lii baax na lii baaxul léeg-léeg nga dem ba ci biir nga toog nga xool benn séquence nga ne noonu lii baaxul wala séquence bi dina baax son bi baaxul fii da ngay obligé nga woowaat ñooñu nga tourné waat ko. Hmm. des fois nga gis sénégalais yu bëri bëri dañuy toog TFM wala Sen TV wala ITV wala xañ na 2 di xaar benn téléfilm. Hmm. ñu rediffusé sénégalais yi di kaas fekk mun na am waa ji dafa tourné ba ngoon disque dur bi yàqu. wala hmm. carte mémoire bi formaté wala leneen ak leneen loolu yëpp daf ñuy dal mais sénégalais yu bëree bëri duñ ko xam. malheureusement. mooy loolu ko xam métti trop. Mm-hmm. léegi entre entre label bi. ak mm-hmm. acteur bi ak actrice bi. Mm-hmm. naka la ñuy la ñuy la ñuy àndee ak naka ngeen di def ba am ba am personnage yi ngeen di soxla ci ci ci cinéma bi. parce que dañuy xëy xëy rek benn monsieur xam def naka la def ba ba ko ba woo ko ba ba ba liggéey ak moom. waaw comme comme comme lu mel noonu ñun bi nga xamante ne bi dañuy doog a jóg mun nañ ne Banlieue Production dund na presque trois ans doog am artistes ñu xam. parce que bi ñuy doog a jóg lu ci bëree ñun ci banlieue banlieue bi lañ doon produire. Mm-hmm. bi ñuy produire ci banlieue bi dañu àndoon ak ndaw yoo xam ne xañ na kenn mosu gis ci cinéma kenn xamu woon. Mm-hmm. après ñuy ànd ñoom liñ naan wàññi boo gis benn lay commencé di jóg di daanu di jóg di daanu xañ na. label yu mag yi boobu ñun amaguñ foon accès mais le fait que yaa ngi liggéey yaa ngi liggéey affaire bi di dem dem ba benn instant nag. label yu mag yooyu au lieu que yow say say élément di dem casting wala ñu dégg ñu ne dara xew na ñu dem non non da ngay jékki-jékki label yu mag ñoom ñoo lay contacter ne la kii laa soxla wala diw laa soxla wala amoo profil tel ko defee loolu dafay waral tamit kooku bu demee jouer foofu après turam dafay ñëwaat répercuté waat ñëwaat di jaayaat label bi après noonu la ñuy def ba tey yàlla dogal na fii nii Sénégal presque téléfilm yu fi daw yëpp de yu mag yëpp am na ci ñoo xamante ne bii tey ay élément wu Banlieue Production te Banlieue Production tamit tey ni muy dundee mooy du ñu am benn moom moo saaliwu mu nekk ñun mm-hmm. mu koy suba ñu woo ko event prod ñu ko doo dem mm-hmm. ñun li ñuy li def mooy suñu élément dañuy bëgg li muy liggéey ak ñun fépp fuñ ko soxla mm-hmm. dañ naan ko da ngay dem la preuve may nuyu benn benn benn actrice bu nekk ñun muy Mamita nekkoon Miss Banlieue 2018 ah, ok ñu ko ñëw au euh, bi bi njëkk a ñëw Banlieue production ñëw foon pour nekk actrice dafa ñëwoon na moom dafa bëgg a défilé affaire yooyu parce que dafa def moon seen TV jamono booba mm, màccagul woon ci métier bi xam amul woon xam-xam bi mu demee xañ nañu xaw ko xeeb mm-hmm. bi mu retourné ñu boole ko bi mu ñëwee banlieue production mu ne man dama bëgg ay défilé man ki naa affaire yooyu ko ne ko sa profil mun nga nekk actrice mm-hmm. après lañ liggéey moom liggéey ak moom liggéey ak moom ba tey nga gis ko ci ay grand tamour nga gis ko feneen ak mm-hmm. ba tey nga gis ko sax ci ay plateau télévision bu yàggul am na benn productrice bu ko woon ci benn téléfilm waxtaan ak moom bi mu waxtaanee ak moom ba pare ne ko Mm, soo soo tourné ak man dootoo feeñ feneen. moom mm-hmm. itam ne nañ ko bàyyi parce que man dinaa la xamal lu bariwul. Bally production li def ci man mooy man du ma boo xam ne dañ mm-hmm. a tënk nañ ko bàyyi xañ na kooku comme defin ah, la signé mm-hmm. lay tënk mais nag euh, loolu ma ciy nuyu ku mel ne euh, Ibou Guèye. Ibou Guèye bu bu. ñoo ko nuyu parce que ñooñu tamit gis naa ne ay producteurs lañ yoo xam ne yor nañ ay label yu mag mais bu ñu signé artiste bu ñu signé artiste contrat tamit duñ la tënk. lu mel noonu mu lay wax nii maa ngi ci nuyuwaale ku mel ne Ibou Guèye Ibou Guèye bu Event Prod ak Jibi bu Yes Dakar nga xam ne tey ñoom produire nañ ay fii film yu mag mais dama gis ne ñoom artistes yi nga ak leen tënk parce que tey ku mel ne Moussa Diop mi ak keneen ak keneen ñoom dañuy nekk di Jibi bu Yes Dakar tey Jibi mënoon na leen da nekk sama produit yu mag a mag a mag tey su leen keneen soxlaa da ngeen may rendre compte wala da ngeen may tàggu wala dara mais ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne bii tey ñi ñuy liggéeyal heure bi ñu lay soxla Ibou Guèye gis naa ko ci benn interview mu ne moom artiste bi bu signé ak yow contrat nag contrat bi nekk cinq ans mais bu la soxlaa trente minutes si journée bi sax yeneen heure yi des si journée bi bu la neexee nga dem liggéey ak keneen dàq sa wërsëg mm. te loolu du producteurs yëpp ñoo koy def mm. mais damay dégg parfois xale ñu ni yéen euh, yéen yi doo leen fay gars yi am na ñu bëri ñuy génn di dénoncer ci wàllu en général boo tey da da ngay gis artiste boo xamante ne bii des fois buy ñëw ci yow ci benn produit yow xam nga produit ni muy demee. Mm-hmm. am na ñu bëree bëri bu téléfilm bi commencé am audience ñoom ñoo lay message dama bëgg a tourner. Mm-hmm. dooma woo ma tourner. Mm-hmm. guddeeg suba ngoon guddeeg bëccëg dañ lay sonal. ñu ñëw nga tourné loo leen xam nga tey téléfilm dafa am ñoo xam ne ay rôle principal lañ yor. am na ñoo xam ne ay figurant la ñuy doon. am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek boo booto si ginnaaw. léegi nag tey ñu bëree bëri duñ yem ñu bëree bëri duñ bokk yow yaa ngi tourné léegi da gis koo xamante ne bii tey da ngay liggéey ak moom. kenn xamagu ko. Mm-hmm. après mu génn si ñaari épisode ñetti épisode téléphone am commencé sonné. coow li commencé bëri xañ na mu gis téléfilm bi di daw mu gis ñaari sponsor ñetti sponsor mu ne noo am nañ xaalis dañ ma war a fay commencé di coow fekk yow des fois nga xam ne téléfilm waxuma la yow artiste bi war àggaguma sax foofu frais de tournage rek léeg-léeg nga def ko ba pare tourné benn téléfilm toog di xaar a xaar lu yàgg pour sponsor bi reveniraat la mm-hmm. loolu bu yàggu rek and na fi coow entre Père Lamine Ndiaye ak ñoom Saneex mm-hmm. sponsor a ñëw a mën a canaliser artistes yu bëree bëri mais malheureusement ñu bëri duñ ko xamee noonu classe Moussa Diop gi daal bu téléphone bi di sonné xale yu jigéen di leen sonal ñu ne noo producteur bi am na xaalis daf ma war a fay dama koy yóbbu ci yoon patati patata mm. fekk ñu ci bëri nag en général duñ sax am ay contrat ay contrat moral la ñuy am. moral la doon wax wax na lu am solo parce que audiovisuel bi fi mu toll nii actuellement ne ku nekk xam na ni ah, ñëpp daal naw daw nañu wuti ko. Mm. muy góor mooy jigéen mag wala ndaw ku nekk yaa ngi daw pour feeñ ku nekk yaa ngi daw pour siiw. Mm. mais léegi naka ngeen di naxante artiste parce que moment bi sa wax nga ko ku nekk ngi lay woo pour feeñ ku nekk ngi lay ki nga xam ne musul def théâtre ki nga xam ne ñëw nga téye tàggat ko ci yenn condition nga koy koy téye. ñooñu ñoo gën a jafe parce que man man tey ñi nga xam ne def nañ cinéma ñu xam leen ñu doon artiste yu nga xam ne am na fu ma jaar ak ñoom ñooñu tey am na su ne bu ma leen soxlaa ma ji nuyuwaale ku mel ne dikoo bi nekkoon Pod et Marichou moo nekkoon yaayu Salan Ndeye Fall yaayu Baba ay ñoom Aïssa Fall daali ñoom ba ci layti ñooñu bu ma leen soxlaa tey du metti parce que dama lay woo allo dama soxla woon lii ak lii nga ne ma non amul problème ñooñu du metti parce que xam nañ métier bi xam nañ li ñuy def xam nañ yow fi nga jaar xam nga kan mooy metti mooy ki nga xam ne dafa nek ci bop koñ bi xamul luy cinéma mhm. jangul cinéma xamul production lu muy démé mhm. gis na ben gain bu mu nekkalon ci koñ bi génné na ci ben pot émanus wala génné na ci ben série mariam wala wutur mhm. siw xalé yu jigéen yi commencé ko top waji na dama bëgg siw après ñu bolé ko ak yow mu ne la copain dama bëggon tourner affaire yoy nga xol profilam mu arrangé la nga wo ko xam nga téléphone mu ak théâtre bokul parce que théâtre dañ koy jangi mais téléphone mu mën nga tok rek xol boy caméraman bu ñaaw bi après nga ne ko kay mu ñëw nga def loko boy bi man ko booy day toog ñaari fan ñett téléphone bi commencé sonné mu ne non waa am na xaalis fu mu romb mm-hmm. mu ne ne waa mm-hmm. mm-hmm. ngeen di li ngeen di dépassé mooy da ngay ñëw tournage par exemple. nga dajale lu mat vingt benn jour ñoom ñëpp ñu war a tourner. bu dañuy añ. am na su ñoo xam ne da nga leen di jox transport. par exemple tey dañuy tourner. te am na ci ñoo xam ni comme ça monsieur Diop ni nga ko ci soxla ku soxla ndox simple. non dañuy ñëw naan la xam nga gën a garaaw da ngay gis artiste boo xam ne bu demee kër. Hmm. café mu suukar ko problème maa na ah. ma dee mais man su ma nekk si lijjantiwuma leen. Ah. café bi muy naan këram du mu ne café. café bi xaw a yeex muy kaas ataaya te da lay wóor na ñii meluñu noonu quoi mais mooy hmm. après nag dañuy mujj di la kereel ay problème affaire yi moo tax. Hmm. lu bëree bëri xaw ma acteurs yi ñu ngi ci bàyyi xel wala xaw ma mais yu bëri léegi boo demee techniciens yi ñooy tourné. Hmm, hmm. waaw boo xoolee Even Prod. Ah. infidèle début ba. ba ci troisième saison infidèle infidèle actuellement ñi ci ëpp xanaa jigéen ñi mais ñi ëpp góor ñi ay technicien lañ ay caméraman lañ ay monteur lañ parce xam la moo tax ñuy def loolu. mooy da ngay liggéey ak benn Assane wala keneen. nga soxla ko convoqué ko tournage 10 heures mu ne la ok nga kale yépp wo caméraman yi wo ñëpp ba ñëw mm-hmm. mu toog ba 2 heures mu ñëw mu xol gàccoo sarbetam dox ndank ñëw mom lijjantiwul na yow da nga am benen temps boy defi lijjantiwul na dafa am loy frère mm-hmm. yoonam nekkul ci loolu mm-hmm. léegi nag boo préféré par exemple tay yaa ngi tourné 4 caméra nga am 5 caméraman wala 4 caméraman léegi séquence bi soxlawul ñaari caméra wala sox séquence mu na am lars ngay soxla rek ak benn 100 contre 100 léegi li nga waron dem diko ko di ci benn boy bu dëkk Pikine wala dara nga jël benn caméraman bi ne ko kaay tourné li mm-hmm. léegi caméraman du la tardeel parce que moom xam na li muy def parce que moom benn mm-hmm. boo xoolee caméraman moo gën a bañ ku ko tardeel mm-hmm. ñoom bëgg ko caméraman def yow doo am na ku ma envoyé message sax man ma laajal Modou Gueye ni yi dañuy def ay promo canapé est-ce que yéen la moo promo canapé moom man li Amina Badiane waxoon laay waxaat rek Amina Badiane yaa ngi koy Miss Sénégal ah. euh, présidente commission Miss Sénégal bi ne ah. ku ñu promotion canapé wala ku ñu violé daf laa neex man dama koy dama koy koy fekk si ci li mu wax. gis nga muy xale bu jigéen. bépp bu ñu promotion canapé daf laa neex. mais mais mais mais milieu bi noonu nga ne milieu bi dafa doy waar. maa ngi ñëw milieu bi dafa doy tey. Ah. soo nekkee jigéen. Ah. nga am dignité. Mm. am fulla ak fayda. Mm. ma ciy nuyuwaale de passage moomi Faati bi nekkoon mbeteel mm. aussi nekkoon tamit euh, infidèle. infidèle xam nga genre moomi Faati yooyu mel nañ lu leen neex. Euh, boo xoolee mun nañ cinéma parce que jàng nañ théâtre doog a ñëw hmm. boo toogee di waxtaan ak ñoom da nga gis ay téléfilm yu mag yoo xam ne ñoom buñ nangoon promotion Kana bi par exemple ñoom ñooy nekk actrice principale yi. Hmm, hmm. bu ñu xam bu nekk na bokk ci actrice principale mais am lu mu bañ. moo tax bokk ci. léegi man mënuma comprendre benn xam nga man yow da ngay dañuy toog sax lu bari benn Modou Gueye toog man. tojuma fenn kenn xamum parce que man ci ginnaaw laay nekk mën naa romb fii yëg car rapide. léegi yow nga jigéen nga ne par exemple nga xamanteeg benn kumba mu ndaw infidèle ma koy nuy waale te koy ñaanal sëy bi yàlla def ci barke kumba mu ndaw waa jëla takk de xam naa ah, lekk na <laughs> a lekk na lu bëri voilà léegi nag par exemple nga ñëw nga xamanteeg benn ko moom ndaw mm-hmm. après mu mu affiché benn casting nga message ko ne Kumba dama bëggoon tour rek affaire mu ne xaaral ma jox la numéro Modou Gueye wala xaaral ma jox la numéro Ron Saliou wala xaaral après envoyé la sama numéro wala numéro mm-hmm. léegi yow au lieu nga ñëw ci kooku nga ne dama bëgg a point yam fa nga xam ne bu tournage amee mun na la woo mais après yaay dem mm-hmm. di ñàkk fayda ci kanamu waa boo ko defee ne Moussa Diop nga ñàkk fayda nga def dinaa la dugal ci série bi dinaa la dugal ci série bi mën nañ laa waaye tëdd laa tëddee ba nga sonn te doo gis caméra. Mm-hmm. waxuma lu projecteur de caméra doo ko gis. Mm-hmm. la preuve li ma lay nettali nii yàggul am na benn casting bu ñu organisé woon après bi demee si bi ba casting bi jeex si guddi gi ñu toog sama néeg nii man a doon. Mm-hmm. toog nii di waxtaan benn gel envoyé ma ay photo yoo xam ne billaahi wallaahi parce que slip bi mi ngi si biti. ah billahi après eh, eh, ma dama gis photo ma gisee photo yi dama ko woo téléphone ma ne ko sawa soxna si mu ne ma sawa ma ne ko xaaral nga juum photo yi ma envoyé mu ne ma noo juumuma maa ñëwoon ci casting bi tey ma ne ko photo yi pour lan la casting boobu ñi may dégg dinañ ko xam parce que maa ngi fa woon maa ngi fa woon comment adresse ma bi woon te mairie waaye waa ji non non ki nekk arko Pikine Pap Sène Pap Sène bu arko ah. Pikine ak ki eh, ki nekkoon oh. Kër Baye gel boo xam yaram bi kii damay fàtte tur bi waaye kii dama koy fàtte gelu euh, kii kii nekkoon Kër Baay. ak euh, Mati Ndiaye bu mbetteel ah. ak euh, kii yàlla ko yàlla yërëm ki nekkoon Pikini production. Mm-hmm. ñoom ñoo doon tànn ñu waroon dugg. après bi ma envoyé ma ne ko soxna si mu ne ma ne ko dëgg la de da nga dégg ñu naan Modou Guèye production moo tax nga envoyé ma sama tey. Mm-hmm. mu ne maa ma ne ko yàlla xam na ne man casting bi ñii jël sa xaw ma leen parce que fa ñuy jëlee du ma ko fekkee am na série boo xam ne suba lañ ko war a démarrer yow xam li ma la wax barki rasulullah am na ku bokk ci série bi koo xam ne maag papaam ñoo bokk benn papa. Mm-hmm. keroog bi mu ma woowee téléphone dama ne ko envoyé sa photo ci numéro bi ñu joxe. Mm-hmm. nga casting comme sa moroom yëpp. Mm-hmm. far yàlla dogal mu casting ñu jël ko. te biñ ko jëlee suba war na bokk ñuy tourné. te pourtant su ma demoon si gars yi leen. non kii sama doom la nañ ko jël peut-être di pata bu boobaa. dafay yàq li liggéey te bu ëllëgee. ko def te man nekkuñu ci laale wuñ ci am na koo xam ne sax acteur lay doon comme monsieur Diop benn xale jàdd ak moom ci ruq après ñu ni moo liggéey moo ko def waa label ñoo ko loolu lépp amul donc voilà dañu gën <laughs>

nuyu moom di ko ziar bu baax a baax muy kilifa gu baax di mag mu baax parce dem lañ këram sax benn jour fee Medina defal ko interview bu ma juumul man ak Roon ak di jëlin ak mm. Khadija mm. Mm. kenn du la wax góorgóorlul parce que xam na aar xam na fan la koy teg Père Lamine ñoom moom mën nañ ko comprendre parce moom dañ ko woo ci benn produit production. Mm-hmm. bi ñu ko woowee moom li mu wax ñoom Sanekh leer na duma leen duma ma waxtaan ak yéen ci xaalis xool leen lu leen neex ngeen fay ma ñu waxtaan moom di ko fay. Mm-hmm. mu tourné produit bi yàgg jotul xaalis. Mm-hmm. comme saytaane yi jaar ci suuf. Mm-hmm. di ko wax ne ko ñoom saaneex jot nañ ci xaalis bi. Mm-hmm. lekk nañ xaalis bi te araam demeewul noonu parce que ñoom saaneex mën nañoo porter produit bi. Mm-hmm. mais du ñoom ñooy financer produit bi du ñoom ñooy recevoir xaalis bi. léegi moom it mu jàpp ne li ko nit ñi wax dëgg la. dëgg la uh-huh. mu attaqué ñoom saaneex parce que xañ na comme li may wax ne ñu ci bëree bëri nga woo leen téléphone tey jot leen day xaw a metti. léegi xañ na woo na ñoom saaneex téléphone jotu leen. après affaire bi metti ko mu def benn sorti ci. Euh, Evans mooy Gallo. Mm-hmm. di ko nuyuwaale moom tamit suñu copain la Gallo moo ko jël Père mm-hmm. Lamine wax li mu doon wax mais bi mu ko waxee tamit fexe na ba moom ak ñoom Sané après trouvé waat nañ solution gars yi jox ko xaalisam jàmm nañoo yi. Mm-hmm. Ah, mais bu dee kaaw ku mel ne. Vieba Vieba bu polygame. ak ñoom Sané pour man dama jàpp ne Vieba man su ma place bi mu toog du wax comme li wax. Mhm, mhm. parce que parce que gis nañ Mbaye Dossi génn démentir ko gis nañ aussi Ousmane ñëwaat. waaw parce que parce que moom li mu wax. Mhm. Euh, mooy ci diggante wiiri wiiri la wax. ak euh, comment dire soit. soit suñu demee fi mu njëkk laal muy kaw wiiri wiiri. man de ba Sénégal gisuma artiste année bi rek lañ la fay 150000 par mois yenen année yëpp 200000 lañ la doon fay. ci lo xam ne moom Mhm. sénégalais yi koy seetaan xam nañ mhm. ñi doon tourné wiiri wiiri mhm. production bi ñoom pakonget gaa yëpp ngi fi xam nañ ne wiiri wiiri ñoom vieux ba doon nañ toog des fois semaine deux jours lañ ciy tourné bu tourné ba pare delluwaat Thiès te du tey bu weer dee dañ lay fay quatre ans yëpp amee luñ ko dërëm parce que wiiri wiiri SSP ñoo ko moomoon muy jaganduur fay nañ ko ba xaalisam mat soit jógaat nekk benn produit boo xamante ne bii dafa débuté. comme li dal produit yëpp man mii di wax ak yow barke Seydina Mohamed bi moment bi soit di arrêté. Mm-hmm. maa ngi doon débuté benn produit boobu bu mm-hmm. mm-hmm. boobu man. nga xam ne xañ na bokkuma ak ñoom Sanex mais financé naa ci presque sept cent mille. ci trois jours de tournage. corona bi ñëw. ñu arrêté lépp. le mal liñ ci lépp dañ ko boole teg. teg te loolu xaalis boobu yëpp dañ ka perdre dañ ko perdre mm-hmm. donc mais nak ñun tamit artistes yi ci nekkon tamit comprendre nañu parce que amul problème ñun ñëpp ñoo yam di liggéey. Mm-hmm. mais tay produit bu melni soa bi mu débuté ñëpp xam nañ ko avant sponsor yoy di dekkee sa xaalis. Mm-hmm. <coughs> ngeen bal bok corona ñëw na. ñu arrêté ko. vie ba moo taxaw man sétan na image mu taxaw kérok bi Cheikh ndjay joggé makka ci nganeel ak ñom Cheikh ndjay yagul parce que yaakaar na ñaari at lay tolleem. tombeel ah. mu taxaw digg ci daan ne moom mënut ta fay ñom sa neex. parce que ñom ñoy dem Dakar diko lijeenti di leen woo ñuy tourné ñu leen di jox xaalis. Mm, mm, mm. Binta Samb ñu ngi koy nuyu moom tamit suñu yaay la Binta Samb taxawaat ne. moom dafay sant ñoom Sanex di leen gërëm parce que depuis moom ak ñoom mbapat la woon ci théâtre ba ñoom ñuy dem di uti xaalis. di ko jox. comprendre nga kon kooku tey boo taxawee même pas deux ans nga ne kii dafa baax. tagg ko ba ñëpp di ko dégg. ñu toog tuuti nga ne kii dafa bon. Mm-hmm. ñaar rek moo am yow nga nekk naa féq mm-hmm. wala nga doon fenn. wala parce que parce que man dama jàpp ne comme lii dal man saa ne sax seetaan naa si benn interview mu mm-hmm. moo ko moom Cheikh Ndiaye moo koy porté. bu dee a tourné jaay ko la. alaaji góoram moom moo koy porté kon donc vieux ba doful dina jàpp ko ñun ñëpp ay artiste lañ mais vieux ba xam que bu moom mi ngi nekk polygame te polygame xañ na produit bi dox na ñoom ñëpp ñu ngi fayeeku. Mm-hmm. léegi nag dafa jàpp ne moom li am ci polygame moo amoon ci jamono sui te bokkul production jamono bu nekk des fois da def benn produit Assane mii du ma bàyyi ma fen mm-hmm. parce que boo xoolee des fois da ngay def benn produit mm-hmm. produit bi perte su ko defee beneen produit ngay jéem a dabu ji pour kii parce que ma jox la benn exemple man ba ma dalee seetaan fii cinéma Sénégal ba tey ngaa ñu ma yeneen label wala ngaa ma yeneen production yi ba man yi may def idole laa fi gis bu nekk produit bu gën a jaar yoon man ci li ma seetaan mm. te idole moo moo ëpp lu event pro financé. Mm. te ci eh, ci idole lañ gën a ñàkkee xaalis. gën a perte. Mm. que xam ne seen YouTube bu event pro. bi idole di jeex ci 300000 abonnés lañ nekkoon. avant saison infidèle di xaaj. infidèle boobu am Sénégal yëpp ne leen dafa bon avant infidèle di xaaj event pro àgg na Mm-hmm. pourtant tey li li Ibou Guèye pertoon ci idole lépp. Mm-hmm. da koy dabu jiwaat ci event pro ci ci ci ci mm-hmm. infidèle kon donc nga xam ne des fois boo nekkee ci milieu bi. mu nekk artiste bi mu nekk producteur bi moo xam keneen ak keneen ku mën di doon. des fois producteur. Mm-hmm. comme jaay la mm-hmm. production leg leg nga am ben produit bo xamni lepp dang koy yakar mm-hmm. nga jël xaliss bu dul jeex nga xep ko ci ah, xoola produit bi ñew mel glace leg leg nga am produit bo xamni debut bi dang koy ñàkkal fayda nga da ngay ñàkkal fayda produit ndeke produit bo moy def bëm moy def bëm comprendre nga loolu la affaire yi non non la mel daal sincèrement motax tax wax rek war am nañu am nañ mbégte parce que lima bëgg chaque fois rek moy li ñu gën ko yaatal gën ko partager euh, Modou Touba gay lañu dalal mu nekk ko xam ci ñun xam nañ ko bu baaxa baax xam nañ ay qualité xam nañ capacité ci liggéey moom ak label bi du ñuy waa Balmain production bàyyiwuñu kenn bu ñu leen limee rek muy mel ni la ñu joxoon ci temps bi daal nay jeex. ban mhm. message nga mën a teg ci fi fi nga xam ne foofu a cinéma toll ak nit ñi ni day wuti ko. loolu fi cinéma toll mhm. mhm. sax waxuma leen mais xale jigéen ñi. bëgg ñu xam ko. ku koy def. na xam lan ngay def. xam lan nga bëgg. parce Sénégal dafa xat. xale jigéen dañu xamul ne gis nga réalisateur yëpp. scénariste yëpp xamante. xamante nañ. comprendre léegi xamante bi mooy yow boo ñàkkee fayda ba benn rabafal tëddee la. Mm-hmm. bu subaa day taxaw ak Modou Gueye. Mm-hmm. nga romb ko. Mm-hmm. Modou Gueye ne oh profil bi baax na de mu ne ko non kii gëmul dara. léegi Modou Gueye day naan non kii du feeñ sama image. parce wóor na ma ne fu mu jaar ak réalisateur bi. foofu lay jaar ak keneen ak keneen moo tax xale bu jigéen bu ci woyof sër. gars yi dañ lay te doo feeñ benn téléfilm. producteurs yi ñoom tamit ñu ci bëri na nga xam ne xale jigéen ñi ñu ci bëri seeni rakk lañ. comprendre nga sa rakk nag bu bëggee dara. yow yaa war a am xel. xalaat na kii kat dafa bëgg dara xañ na naa ko dimbali ci li mu bëgg. bañ ko sonal wala bañ ko chantage wala dara mais ñoom tamit na ma yàlla jégal. muy producteur yu bëri producteur sax métti wuñ mais scénariste yi. parce que tey producteur man mun naa nekk producteur. am na benn série bu ñuy tourné. Mm-hmm. ñun mën naa produire moom moo Saliou moom mooy xam artiste bu mu soxla moom mooy naxtaan artiste bi ba tëddee ko pour mm-hmm. tourné ko. Ah, fekk man du ma ko sax yëg. <laughs> comprendre nga moo tax daal man maa ngi leen di conseillé xale jigéen ah. nañu xam ne ku sa feeñ jot. Mm-hmm. par force di feeñ. am na tey ñu nekk ci banlieue bi ñoo xam ne. man ba ma leen xamee ci cinéma ba tey. lañ meloon ku mel ne ay ñoom Dikor ay ñoom Maam Jaara ay Himba yooyu ah. lañ meloon ba tey ci cinéma produit bu dul produit jinne tourné nañ ko te nañ meloon ci cinéma ba tey noon lañ mel ah. bokkul tey ñu ci bëree bëri fexe leen ba bu leen jaay seen ngor mm. parce que cinéma mm. da ngay feeñ tey Sénégal yëpp naan diw diw mm. trois mois quatre mois da xewi par force la. Mm. kon nag jarul rey sa bopp ah, jeex na. ajo kontaan naa si ñëpp ñi ma doon seetaan di kontaan ci yow mi nga xam ne yaa ma Mariama ba pare <laughs> a jur sa caméraman yi xam nga caméra woman bi. mais intégré Mariama ñu jaay xale Mariama bi ma ci rek pour ma doon ma doon jàpp mais xam nga yow man we feng sak baru <laughs> di kontan bu di kontan sama jawar soxla ah. kadige cep ah. dal ah. man kontan bu di hmm. kontan xam nga ci hmm. asal kontan merci beaucoup nonu lañu andé won ak mo deggé suñu premier numéro acte di cinéma gis ngeen ni rek lay démé donc dañ leen jox benen numéro du yag dal di wax ni sama sama gutti dama koy jaay bepp ko xam rek mo xam ko fo man di nek rek te yor ndox mu neex ñew mo dal lay jaay tawul bi après ñu dal di koy waxtané du metti ñew leen ñu dal ci wax c'est un temps boy sa ndox bi dama andi ko lugar ya wa mu ngi non ñew leen fi émission bi part partenariat yi waa Bichri Sëñ Fallou yéen ñëpp ñoo ñu daal liggéey ci li nga xam ne moo di merci beaucoup à maa leen kontaan sama technicien maa ngi leen jaajëfal merci beaucoup